الله الرحمن الرحيم الحمد لمستحقه والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما الله allahu akbar assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi am mbégte bu rëy ci teew ci jataay bu màgg bii nga xam ni dañ koy waajale bisub ku màgg di ko defe ci barab bu màgg ñu ñëw fekk fii sunuy kilifa yu ko mate di ay référence ci yoonu murid di ay référence ci liggéeyal Cheikhul Khadim di ay référence ci jëfe ndigal ak nangoo am kilifa ñu ràññee ci Cheikh Salih Mbacké Cheikh Mamadou Mourtada ràññee ci sëriñ Ahmadul Badawi yu Mbacké mi nga xam ni mu mag wi moonu ci tàbbal ci biir liggéeyal nitug yàlla ku la ci woo ku ne yéene la aw yiw jataay mel nii ak barab bu mel nii boo ko romboon képp xam ni sëñ Fallou lañ fay waxtaane nga taxaw fa déglu lu mu tuuti tuuti sun borom loolu dala ciy bindal aw yiw ku la ne nag kaay ma boole la ci liggéey boobu yi am na lu mu la yéen sëriñ bi sant nan bu baax noo ngi nuyu sëriñ Xaadim Lo bu Cheikh Mamadou nekkoon wëllëre di xarit ci sama wayjur sëriñ Abdul su ma tegee nuyoo bi ci loxoom dana jàll ci njaboot bi yépp maa ngi nuyu bokki taaliba yi ma fekk yépp di nuyu kilifa yépp di leen barwaax euh, lii nga xam ni moom la ñuy waajal muy bisub Cheikh Mamadul Fadal radiallahu anhu wa nafaana laahu bi barakaati day bisub yërmande ci mbooleem yoonu murit waaye law na ba àgg ci mbooleem jullit yi ba àgg ci mbooleem pàkki suuf yépp xëy na dinañ am ak lot lool ci waxtaan waaye yéene moo ci dugal ak jëfe ndigalul kilifa weer wi ñu nekk di weeru rajab di weeru bari ay tur lool te bari gi ay tur li ko sabab mooy bari gi ay njariñ tur yu bari ci mbir dafay tegtale njariñ la loola am sunu boroom am na ay tur juróom-ñeent fukk Euh, euh, euh, ak juróom-ñeent ak yeneen yu ñu xamul buñ ne allah muy ismu zaat boo ne arrahman lii nu jataay bi yëpp day dugg ci ismullahi rahman bu dee arrahim ku dem àjjana ëllëg turoo moo la fa yóbbu bu dee almannaan yooyu yëpp dafa am lu muy firi bari tur bari njariñ rek lay firi weer wii ñu dugg na di weeru rajab arab yi ko doon dund ca njëlbeen bari na lool ay tur wooye dinañ ko wooyee rajabul fard euh, dafa bokk ci al ashurul xurum buñ dee al xurumu dañuy lim ni ñeent la ñett yi ñoo sësaloo muy sul qaada sul xijja ak muharam shahru rajab dafa fedde ko li ñuy wax se solo sësaloowul ak ñoo tur wo loolu moko ko raja rajab rajabul faram des na ko raja rajabul asam li annahu la tusma'u fihi qahqahatu sila lil xitaan wer la wo xamni ne bu masaa ñew ba ca jamonoy jaahiliya ñu ci xare lu ñu lu mëna dox seen digënté bu axé ñu nga nay ngir war ma la ko wër te bobu l'islam dikkagul dinañ ko tuddee rajabul asab li anna allaha li anna rahmatallah tusabbu ala ibadihi sabba weer la woo xamante ni sunu borom da ciy sotti yërmandeem ci ay jaamam moo tax ñu tuddee ko tur boobu des na ko tuddee rajabul mudar lu tax ñu ni li anna xabilata mudar kaana tazidu fi taazimihi wa ixtiraamihi fa nusiba li dalik giir gu ñuy wax xabilatu mudar ñoom dañoo joxoon weer war ma ju toll ni lu mën a xew bu dikkee lépp luy xeeti violence luy xeeti xare ñoom duñ ko ci def moo tax ñu joxoon ko tur woowu ginnaaw ku ci gis sa bopp tudde ko aw tur noonu gis nañ sañ suñu bopp nañ ko tudde weeru yërmande weeru jéggal weeru sëñ fàllu weeru barke sañ nañ ko bu nu neexee ñu tudde ko weeru خدفك كبلة خدبث فضل فضر ولا ونف جاي أم نيتي سنجة تلولو دلالة مويوة روحمي بارينا أي جارين لول جكوني أكسيتي شيخ محمد الفاتح صلى الله عليه وسلم دون وحني أكرموا رجب يكرمكم الله بألف كرام بألف كرامة يوم القيامة دلالة روحمي بارينا أي جارين لول جكوني أكسيتي شيخ محمد الفاتح waxtu bu ngeen ko terale sunu borom dina leen defal junniy teraanga bu yomal xiyaama benn benn benn teraanga boo ci def sunu borom junniy teraanga la la koy fayee bu yomal xiyaama sallallahu alayhi wa wax ni fadlu rajab ala sairi shuhur ka fadlil quran ala weeru rajab ni mu gënee yeneen weer yi ci des mooy ni alquran gënee yeneen i wax xanga bu doon yéene ni téere nga japp ni téré rek la alcorane gën gën waye sairul kalam sairul kalam moy téré mooy bu ñu bind dañ ko wax soko bind amna na yeneen yu ñuy wax yu baax it yoo xamante ni bindee su leen dajalé yoy yépp nag alcorane ko gën ni alcorane gëne yoy yépp nak lila wéru raja rajab mo leen wér yi ci dess sallallahu des wasallam da na wax ni sunu borom day wax ni shahru rajab shahrullah wa shahru chaban chahri wa chahru ramadan chahru ummati ila axiril xadis dafa wax ne weeru chaban mooy weeru sun borom subhanahu wa tabaraka weeru euh, weeru rajab mooy weeru sun borom chaban mooy weeru sayduna muhammad chahru ramadan mooy weeru mooy sunu weer nun ummatu sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye daf cee wax ni dafa dellu si waat ni ku woor benn fan ca rajab waxul ci saabaan waxul ci ramadaan ku woor benn fan ca rajab sunu borom dana ko defal ngërëmam yëg na kawe te bu ëllëgee ca àjjana àjjana ju ñuy tudde firdawsi ca la koy dëkk la loolu ci weer ci ngëneeli weer bi ca la bokk am ko laaj sallallahu alayhi ni ko waaw ku am gàllankoor ba mënula woor weer wi te bëgg ci yiw woowu nu muy def mu ni ko ku ci saraxe miskin lu toll ni wenn mburu boo légee suñu borom la muy fay ko ko waroon loolu lay fay loolu nag nga gis dinaa dégg suñu àllaa njaay mi mu koy soññee booli teraanga yi nga xamante ni fadail yépp dañ koy togg di ko jëme ci gani sëñ fàllu yi defe naa ne bool yooyu benn bool bu ci nekk yaa ëpp au mburu pour li muy bari bari tuubaa njaareem ba ci gox bi yépp bu ñu àggee ci kasu rajab bi mënuñoo lakk lu doy Touba mënuñoo lakk lu doy gan kon defe naa ni foofu itam li sallallahu alayhi wax ni ku ci saraxe lu toll ni aw mburu am nga yoolu ka woor weeru rajab te weeru rajab ka ko woor lañ koy faye mooy ngërëmal suñu borom ya gën a kawe ak bu ëllëgee mu dëkk àjjana firdaws muy weer woo xam ni xew-xew bu rëy am na ci buñ ci duggee xel dana ci dem muy al israa wal mi'raaj al isra'u mooy rexlata ardiya euh, tukki boo xam ni des koy def guddi te ci kaw suuf lay doon raaj mooy rexla samawiya euh, isra mooy dox bi sallallahu alayhi wa jóge woon Makka dem euh, masjidul aqsa loolu la ñuy tudde isra mi'raj mooy fa mu jógee masjidul aqsa dem ba fa sunu borom fa soob sunu borom xew-xew boobu mu ngi amoon ci guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru rajab Euh, wax ko sax baamu rek lay firi waaye loolu defe naa ne ku nekk xam na ko muy xeexu bu rëy ci lislaam euh, bi nga xamante ni sallallahu alayhi wa dem na ba masjidul aqsa yonente yem bu fekk yépp dañ koo jiital jox ko war ma ju mat sëkk mu jiitaleen julli kon dafa mel ni liñ koy doyee moom tàmbali na ko yëg te àggagul kii dem ci yoon yonent yépp gàttandu la sargal la wormaal la jox la seen teraanga yaatal la nga jiitaloon julli ñu barkeelu ci yow taagagoo fañ la jëlee mel na ni mission bi tax ñu woo la xam nga sallallahu alayhi wa sallam jógee foofu dem ànd ak sayyidina Jibril ba bëtt juróom-ñaari asamaan borom xam-xam yi wax nañ sax ni bëtt na yeneen xawaajib yoo xamante ne ci daraja yonante bi sallallahu alayhi ci la ko bëttee ndax am na foo xamante ni munu faa àgg na foo xamante ni dani su jàllaatoon benn sabre day seey ngir leer gi nga xamante ni mënu koo déglu sallallahu alayhi wa jàll ci sunu borom mission bu sunu borom wala ndigal lu mas di jox sallallahu alayhi wa da koy wax sayduna jibril alayhi salaatu wa salaam mu andi ko ci yonante bi waaye ñor bu ko julli ñor da ko woo ba ba mu agsi mu jëflanteeg moom la mu jëflanteeg moom mooy wax na jaamam ba loo xam ni kenn fekkewu ko fa awha illa abdihi ma awha loola moom yoonu kenn nekku ci waaye mu jox ko julli bi muy ñëw daal juróomi julli yooyu la àndaale yooyu farata julli yooyu di sërite bi nga xamante ni moom la sallallahu alayhi wa sallam andi Euh, maa ngi wax ni yonente yi bi ñu tasee Sayyiduna Muhammad ci baytul muqaddas ñoom ñëpp dañ ko dañ koo warmaal fo lo ci sëñ Tuubaa mi ngi wax ni xat xaddamuuhu iswaajahuuhu waxtaramuuhu dawi naqaay bi mu dikkee dañ koo jiital warmaal ko jox ko àq ji nga xamante ne moo yàllu ci moom mu jiitaleen julli موخا فنني واحترموا وخدموا وكرموا واستسلموا تواضعا وعظموا لقدره المحترم ورمال نانكو جيتال نانكو جيتالين جولي ترال نانكو بايا نانكو سين باب واستسلموا نيوم نيب اندون دون بايا نانكو سين باب تواضعا وعظموا نيب ني نور رك تي كانام كين باجا يمكو لقدره المحترم غير درجه جيغا خامتني سونو بروم ديفال نكو صلى الله عليه وسلم ñoom euh, euh, yonente yooyu yëpp nga xam ne ñoo ko gàttandu teral ko kenn ku nekk am nga daraje ndax kenn ku nekk yonente nga te ñëw nga def mission sunu borom ba mu mat ak sa daraje jëla sunu borom defal moo tax sëñ Tuubaa di wax ni li kullin min assaadaati jaahun wa xurmatun walakin jaahal mustafa al barri yaatali kenn ku nekk am na ci ñoom daraje yu kawe waaye nag darajey mustafa kenn duko gam gam-gam jëlee darajey kenn kawe na len ñom ñep euh lu bax li nekkon ci yonente yépp sun borom da ko dajale ak seeni téré soté ko ci sayyiduna muhammad alayhi salatu wasalaam muhammad feesul mu soko a jëfaat yëfi boppam fett feccile ko sayyiduna muhammad loola moy li nekk ci sayyiduna muhammad te nekkul ci keneen lakal mucjisaatu alxaariqaatu allati biha atat khablu min xayril mira jumlatu rusli loolu euh, manees na ko jànge ci al israu wal miraj julli googu nga xamante ni moom la ñu sallallahu alayhi wa sallam day farata joo xam ne li feeg nit kee ngi dund di ko wàcc ba ci lislaam am na lu ñuy tuddee salaatul xawf ngir ñàkk a mën a wuute julli wala ngir ñàkk a mën a leb boru julli salaatul xawf yonent bi jiite na ko saxaaba yi loolu li li ma ci indi rek importance su julli euh, niñ koy defee mooy bu waxtu xare amee wala tartar da ngay xaaj jullit ñi ñaari xaaj benn xaaj bi dem julli ak imam bi beneen bi ci des taxaw yor ngànnaay bi garde ñi nga xamante ni ñooy julli bu imam bi jullee ñaari rakka bu dee julli ñeenti rakka day jóg taxaw ñaandoon ak moom àggale ba sëlmal dem taxaw fa ña doon garde taxaw ña doon garde dikk seen place imaam ji mottali ñaari rakka xaar leen euh, ñu mottali ñaari rakka ya leen rawoon imaam salma ñu salma loolu pour wane ni julli ahamiyatu ahamiya bi nga xamante ni julli am na ko bu dee bu dee noon bi ci kanam ci seen kanam la nekk ñoom jullit ñi dañuy def ba léegi ñaari sàppe bu ñuy rukkoo ñooy rukkoowandoo waaye bu ñu àggee ci sujjóot bu ñu àggee ci sujjóot sàppe su jëkk si sës ci imaam bi ñooñu ñooy suddoot ña ca des sëgg taxaw di ko xaar maanaam di def mor di fuglu noon bi noonu lañ koy julle jarul détaillé ba mu àgg ndax waxtu bi mayewu ko loolu importance julli laa ci wane waaye ñu xam ni dëgg dëgg julli sëñ Tuubaa moo ko téye julli na ci pantre bu ñu ko dugal samp ci ay pont delluwul ginnaaw mu julli ca ba àggal laajul fu ñuy jaayee pikiru tatanos julli na noon nekk ci kanamam nekk ci ginnaawam nekk ci ndeyjooram nekk ci càmmooñam te deful salaatul xawf julli gëm doon julli moom mu doon julli ci kanam sëñ daam abdourahman lo ak ci kanam maam Thierno la yemale kooku fonk julli julli na ba julli ci kaw ndox du ndox mu taa ñu naan léegi la fi taa wala bariwul ci kaw géej la ngir yitte ju jox julli kon loolu war nañ koo xam bu baax a baax a baax ci sëriñ tubaa ak bis bii nga xamante ni mom lañ deggmal muy ñaar fukki fan ñaar guddi ñaar fukki ak juroom ñaar ci kasu radio di euh, euh, euh, dat bi nga xamanteni ci la julli ci la sun borom farataal julli ci non julli ni waye barab bi ñu koy defé noo ngi ciy ndokkeel bu baax a baax njabootug sëñ daam abdourahman loo di fàttaliku bu baax sang bu tedd boobu sëriñ daam abdourahman lo dafa wara am luñu jànge ci ñoom jamono ji lëj na te soppiku te bari ay yëf waaye li mag ñi yoroon loola fa la mbir daam boo ko nattee ci zahir matériel àdduna ak poñoxti te xoy àdduna doo ko gis waaye wóor na ma ni wóor na ma ni buñ demee ba yowmal xiyaam ba sëñ Tuubaa ni ko sëb cëre nii dana bari nit ku ca teg ba soo sañoon di sëñ daam loolu mbirum suñu borom ay léeb mbir mi moo demee noonu sëñ Tuubaa ci boppam bi mu wootee wooteem bu rëy boobu yi sëñ daam mi ngi bokk ci ña jëkkoon a jaayante ak sëriñ Touba te lam doon wax dëgg la ci moom noona la ànd ak sëñ Touba ca Mbàkke Kajoor bi nga xamante ni ci taarix bu gàtt jàng na alxuraan ba wattu ko ba dem ci këri diine yépp fépp foo xam ni fu ñuy naane xam-xam mi ngi ci senegal sëñ daam Abdourahman dem na fa ba jeexal la fa nekk su ma taarix juumloowul mi ngi dabe mamor ante sali ci jamono ji mi nek pataar te bobu sëñ touba mi ngi ci daara way juro fofu la ñëwee ci mamor ante sali jang ci mamor ante sali la fa nekko ànd ak ci bir daara ji ba bi nga xamanteni mamor ante sali liggéey bi matna ci ca mbàkke kajoor mu nek ci daara ji ba bisub jaayante ba ñëw mu jaayante ak touba euh xessa bi dafa gudd waaye la ànde ak bi def mu ba ni sëñ bi jógee Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawol ñoo ànd ni mu jógee Mbàkke Bawol ba ñëw Daaru Salaam ñoo ànd ni mu jógee Daaru Salaam ba ñëw Touba ñoo ànd ak ba ni ko sëñ bi digale mu ñëw Daaru Alimul Xabir gii toogal fi sëriñ Touba bi nga xamante ni sëñ tubaa defar na génération bi jëkkoon a jébbalu topp ci moom ba ñu mat daf leen a ay responsabilité kenn ku ne mu am fu la yóbbu am lu mu la dénk di la ca liggéeyloo ndax sax su dafa rëyoon waaye jël li ëpp solo ci liggéey bi muy jox ko sëriñ daam abdourahman loo muy alquranul karim ak tarbiya ko boole woon jox ko njàngaleem alquran ak tarbiya defar nit fi mu ne loo gis ci jamono ji mu yàqu ku jàng te defaruñ ko moo ko yàq dafa boole woon jàngale ak tarbiya loo gis mu manqué ki jàng te yaruñu ko ki ñu yar te jàngaluñ ko mo mo foo gis lu manqué ki ñu jàngal te yaruñu euh, foo gis lu yàqu foo gis lu yàqu ki ñu jàngal te yaruñu ko moo ko yàq foo gis lu manki ki ñu yar te jàngaluñ ko lu manki lolo loxo ma nga ci moo tax mu boole jàngale ak tarbiya te loolu mooy defar nit mooy defar société mooy tabaxaat l'islam mooy defar am réew mooy defar aduna ci loolu la sëñ daam abdourahman nekkoon ci sëriñ dinaa ci nettali tuuti rek loo xam ne maa ngi ko jëlee ci kilifa gu ma wóolu ay waxam ndax dundam gépp Pastef la woon ci sëñ Touba ak taalibe rek a ko ñoroon dañuy waxtaan mu ni ma am na jëmmi jamono sëriñ bi bi muy waaj dem ci tukki bi am ñu muy waxtaanal ci wàccaay yu muy bëgg a def nu ñu ko gisee ak lu ci seen xalaat ku ne mu gaaral la ko nga am loo ko wax waaye loolu ba ba agsi ci sëñ daam abdourahman bi mu ko laajee lu ciy xalaatam sëñ daam da ko ni demal nga def li la sa borom bàyyi nu fi nu def li nga nu digal soo demee wala yaasu billaahi dellu siwoo du wàññi ci liñ la gëmoon lu toll ni li dee soo demee dellu si du yokk ci liñ la gëmoon lu toll ni li dee sëñ bi ni ko hakaza ya abdourahman sëñ bi doxale noonu jox ko ndigal mu ñëw daara alimul xabir dénk ko eh, dénk maam na njaboot gi waaye njaboot gi fii lañ jànge ci moom euh, sëñ daam sëñ bi bi mu ko joxee ndigalul ñëw fii da ko ni dangay dem ba gis ma wala nga gis sama ndaw toogal daaru alimul xabir néeg ma fa ba gis ma wala nga gis sama ndaw bi sëñ Touba jógee ci géej gi rakkam ju baax ji di ko ganale fii ci Daaru Rahman Eh, ci ci ci ci Daaru Salaam maam Cheikh Anta ngan gi rëy lool bokk yëpp ñëw àdduna bépp ñëw teraanga ju ñuy terale nit maam Cheikh Anta def ko sëñ daan ñëwul ba ngeen nga jàllee am ci bokk yu ku ñëw ni ko ah, man de sëñ daan dama am tuuti ab gàg-gàg mu ni ko lumu mu ni ko sa suñ sang bu tedd bii dem liggéeyi ba ñëw rakkam ju baax yi di ko ganale ngan gu toll ni gii mu ko ganale ñépp ñëw gisuñu la loolu daal mat na maa leeral sëñ daan ni ko ku baax ki dama ni woon demal toog ndaam ba ba ma ba ma fekk la fa wala sama ndaw fekk la fa te moom fekkaguma fi ndawam fekkaguma fi loolu moo di taalibe dafa am fu ñu tegoon sëñ Tuba sëñ Tuba moo ko fekk si fii wax nañ ni dafa yónnee Daaru Salaam ñu indil ko gaal goo xam ne moo wax ne nañ ma indil gaal sàngam ba mu dikkee der ba mu doon jullee ci géej gi ak yére yam solon ba muy julli ci géej gi moom la yëkkati jox sañ Daam Abdourahman xanaa loolu may ñaan sëñ Xaadim rek der boobu su ma ci mënee am tuuti rek barke loolu noonu noonu loolu loolu moo di ak taalibe ñoom am na fu ñu tegoon sëñ Tuubaa gis nu woon lenn lu muy sëñ Tuubaa te fi mu ne luy yëngu yëngu luy xew xewul sëñ Tuubaa rek xew sëñ Tuubaa rek yëngu le 5 septembre 1895 bi tubaab bi dajalee borom kurusee borom kaale yépp ni bu kenn yëngu sëñ Touba rek a yëngu moo tax lii xew fi ne xewul li yëngu yënguwul sëñ Touba rek yëngu genn kilifa lañ am muy Serigne Touba ñi mu jaboote nga xam ne ñoo jiitu ci moom kenn buggut a doon ci sëñ Touba lu may ab taalibe borom bis bi ñu dëgmal doy na ci misaal di Cheikh Mamadou Fawal moom léppam da doon sëriñ Touba te nanguwut a moom dara nanguwut a feeñ fenn nanguwut a gis lenn lu may sëriñ Touba ngir leeral tuuti ci ak taalibeem rek mu bàyyi boobu yi mu defoon ak sëriñ Touba loolu képp doy na ci moom doy na ci mboole murit yi buñ ko xamee ñu xam fi ñuy teg suñu tànk buñ ko defee rek euh, lu nu bëgg danañ ko mën a am fu nu fu nu jëmit danañ fa Cheikh Modou Fadal bi nga xamante ni sëriñ bi woote na jataayam boobu yi ay njaba ñi ñu tudd di ko tudd nakk ca ay jarbaat nakk ca rakk nekk ca mënu leen fii li fi nekk mayewul day jaay te ak taalibe ak ak ànd ak man ci doxe ni may doxe mooy jëm ci yàlla te bañ a yemale yàlla ak dara jëfe ndigal bàyyi tere tënku ci li nga xamante ni mooy daawa bi sëriñ Touba andi woon loolu mooy maye li fi nekk sëñ Fallou daal di xam ni kon mbir mi nekkul ci baay ak dafa nek ci serigne ak talibé mu jël ak njureelem jaay ko jënde ak ak talibé dal di way fi sasi ya ayyuha ash-shaykh an-nafiz al-murtaja ya fatihan ma kana xablu murtaja mun ko yow sang bi shaykh maanaam naa def ya ayyuha al walid waye tàmbali génn ci mom walu wilad shaykh al murtaja shaykh an-nafiz an-nafiz gis nga naxt yi muy indi ci serigne bi mooy mooy gànjar lu am valeur koo xamante ni valeur jikko yépp makaarimul axlaax yépp lépp lu baax lu ñuy niit di ko wut di ko soxla mi ngi ci yow mooy naxt boobu mu andi foofu nafiir al murtaja yaakaar yépp ci yow la jëm yaa fatihan na kaana xablu murtaja yow mi nga xamante ni li tëju woon yépp ci yu baax yaa ko ubbi bientôt bu nu watiya bil irada njureel gi doxoon suñu diggante sama diggante ak yow léegi jaay naa ko jëndee ko ak taalibe irada nag mooy euh, euh, euh, déglu ndigal ak jëfe ndigal sami'na wa ata'na loolu rek mooy mooy mooy ak taalibe lakum li kay ahsa bi xarqi aada uslub bi muy jëfandikoo tam mooy uslub war ma boo xamante ni nit koy war warmaal moom bàyyiwul dara بيعطوا بنو وتيه بالإرادة لكم وهو لك لكم لكي أعوض بخرق عادة غير ما منك أمي لني تود خرق العادة سرير فل لبم خرق العادة خرق العادة نك دفعات لي دوخ جامونو جي تي جيم تي سيغ وي ماغالم كي لم في سامبون لم في دفر ا اغالك جوم لول لب خرق العادة لك سيغ فالو مو مو واخ كو min baadi ma staraytumuha minni ahdaytuha lakum bi xayri manni bi ma jaayee sama sama njureel ci yow jënde ko ak taalibe maa ngi lay ñaan nga nangul ma ko boo ma ko nangulee boo ma ko nangulee jëmmi nangu googu jëmbi njëgu nangu gi wëlbatiku naa defaat ko addiya jaay njureel gi jënde ko ak bi bu sëñ bi nangoo loolu ba jox ko njëgu njëgu njaay moomu njëg ki jëlaat na ko defaat ko addiya ci sëriñ Tuubaa buggul dara nekk ci loxoom lu may sëñ bi wutul dara lu may sëñ bi loolu nag dafa mat a xam ci nun sëñ Tuubaa de su ko jox di desal gis nga lu lëjal nit yowmal xiyaam ëllëg ba muy jox sëñ tubaa la mu desaloon téyel ko boppam loolu ko lëjal foo amee jafe-jafe la nga joxul sëñ Tuubaa loola moo lay indil ay jafe-jafe indil la fitna waaye boo boolee sa lépp jox sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa joxe téyel la sa lépp foofu la sëñ Tuubaa nekk sëñ Fàllu nekkoon nan jàng ak taalibe ci suñ magi démb yii euh, bu waxtu wi xawee gàtt rek nu gàttal loolu fi la mbir mi nekk amul dara lu mu soxlaate ci boppam bàyyee boppam Serigne Touba doonub taalibe bu koy déglu guddi ak bëccëg xamul naaj na xamul guddi na xamul day taw xamul dafa tàng moom daan ndigalu Serigne Touba la xam moom lay jëfee melokaan woowu mu meloon ci sëñ Touba bu mu gis bi nga bi bi fi sëñ bi bàyyi ko. taarix soxal na ni bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy def li charia digle ci nit ku fi bàyyi ko ñu di ko tudde miraas bi ñu agsee ci moom moom dañu amul ak cër ci wàllu miraas bi ndax amul bàyyi ab sëriñ laa am te ab du doonul sëriñam bu fekkee am na ay doom ab taalibe du doon ay sëriñam ab sëriñam doom mooy doon bàyyi te moom gisatul loolu bu nu nu doomoo gi jaay na ko jëndee ko ak taalibe ak taalibe la dese ci sëñ Tuubaa su ko jox cërub miraas bi mu gisatul sëñ bi na mu nekkee woon mu wéyagul ci Cheikh Mouhamadul Moustapha defu ko bàyyi de ndax moom bàyyi tàggoon ak moom ab sëriñ la ko def fa mu tegoon sëñ tubaab mu teg ko fa wane ci exemple bu rafet noppal lool Cheikh Mouhamadul Moustapha ndax yan bi réyoon na diis na waaye ku yàlla yan lu yan ba rëy rëy bu la téeñalee sëñ Fàllu mu woyof mhm. te loolu Euh, sunu borom defaloon na ko sëñ Modou Moustapha sëñ Modou Moustapha doyloo ko lool loo am xelam lool amul dara lu muy def loo xamante ni lu concerne yoon wi la concerne murit yi concerne te diisoowu ci sëñ Fallou te lu ko ci sëñ Fallou jëkk wax loolu doy na ko bari na lu sëñ Modou Moustapha doon def loo xamante ni diisoon te lu ko sëñ Fallou jëkk wax loolu doy na ko loolu nag xaj na nekkul lu daan génn ci biti ba ñëpp xam ni nii la demee waaye sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou nii lañ demee sëñ Fallou sañ Modou Sa da ko doy lool lool ba ci liggéeyal jumaa ji xeer yii nga xam ne moom la ñu liggéeyal jumaa ji lépp sëñ Fallou ko topp te xeer yi kat du xeer yi hasard xeer yi baatin la fii yëpp amul doj fii yëpp amul doj la ko fi andi leneen la loola nag mbirum sëñ bi la dara am du tàkk euh, sëñ Modou Sa doyloo am xelam doyloo jikkoom doyloo aw doxalinam wóolu ko ci boppam wóolu ko ci njabootam wóolu ko ci masuliya bi ko sëñ tubaa gàll ci aw loosam loolu jumaa ji doy na ci màndara bi muy dem moom la fi bàyyi yoon wi ci loxoom la ko teg yoonu murit koo ci wóolu ba teg ko ci loxoom jumaa yi sëñ tubaa ji koo ci wóolu ba teg ko ci loxoom doy na la te loolu am na ci ñoom dañoo rafetaloon seen diggante euh, bi sëñ Modou Moustapha sañcee dëkkam bële ci di Taayif Cheikh Mouhamadul Fadal moo tudd turu dëkk bi sëñ Modou Moustapha bi mu sancee Taif dafa wax sëñ moo sëñ Fallou ni ko tuddal ma dëkk bi sëñ Fallou ni ko Taif tudde naa ko Taif daal ciy def ay bayit bokk na ca bayit yooyu yaa taifan yaxza nawaiba dahrihi لص بالخليفة مصطفى بطائفي سنفع من يوم يور أم جاهل ولا أم صغر فنان قد أجمف في جامعنا طول كان كنا يقول تني فنان جمف بجامعنا طول لفوف نانا دمال سيتي سيها محمد المصطفى ما قتاي ما والأرامي والعفات جميعا ما بين الراجل منهم أو خائفي موي كيغا خامتاني فو نيت امي نجاخare ak ak jaxle bo demee ci Cheikh Mamadou mustapha seigne Mamadou mustapha dindi lolo bu dee njàqare mu dindi ko bu dee bëgg-bëgg mu mu saafara ko bu jamono taré mu mu mu yoromal bo ñaké bu défar la bo réré mu gindi la ya, wax ni képp ko xamante ne nga wala khaif raj moy ko xamante amna lu mu soxla yaakaar ko waaye mëna ko ci jox seigne Mamadou mustapha moy guddu bi koy joxe boo nekkee xaayif am looy ragal wala looy tiit wala loo xamante ni daal jaaxal na la demal ci sëñ Modou Moustapha dox sa diggante ak loolu loolu fonk magam ak joxe cër te te lu sëñ Tuubaa di def ci nit def na ko ci moom waaye nanguwut a moom nanguwut a feeñ nanguwut a xam muy wax lépp mi ngi ci moom waaye daf daf daf daf daf daf eh, ni mu eh, loolu lépp nanguwut a feeñal dara xam na ni sëñ Tuubaa loolu lépp def na ko Cheikh Modou Moustapha al Karim mu def ko kilifa def ko wasila di ko déglu di def ay ndigalam lu ñuy tere moom de su ko waxaale ndax ñoom loolu amul place ci seeni mbir euh, loolu nag bu doxalinu kilifa yi melee nii noonu itam la meloon ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké buñ tuddee Cheikh Mouhamadou Moustapha tudd nañ sëñ Fallou ak magam luñ ne ay magam ndax moom la am ci mag bu ñu tuddee sëriñ Baara tudd nañ sëñ Fàllu ak rakkam dana mën a yóbbaale képp kuy rakkam ngir gàttal waxtu wi waaye ku ne seet naa yow luñ mën a wax mas naa gane Cheikh Mamadou Lamine ci Mbàkke Kajoor bi ñu demee ba ngan ngi jàll bi ñuy tàggatoo kenn ku ne dafa wax ay bayit jëme ko ci kaca des du ma ni sa moroom ndax ñoom kenn ku ci jàppee kaca des moroom amul dañoo jàpp ni sëñ Tuubaa rekk fi nekk ñoom taalibe sëñ Tuubaa kon du ma wax baatu morom ku ne dafa war jëme ko ca ka ca des sëñ Fallu wax sëñ Baara ni ko lillahi darruka min cheikhin xawaaru taban xad zanaha adabun naaxika min adabi yéem naa sunu borom ci jëmm joo xamante ni mbooleem garaat yi yàlla di takkal di takkal na ko لله دارك من شيخ حوار تبن خد زانها ادب الناحيك من ادبي تا لمي بري بري اي درجه داكو بولك اي تاجين اكو بيار اك اك اك, أك اسكن بوبا أه لله دارك من شيخ حوار تبن خد زانها ادب الناحيك من ادبي وذي فضائل لا تحصى واسخرها ما فيك من حسن الاخلاق والحسب لا لا يجاريك في الميدان من أحد في العلم والحلم أو في الجود والنسب وعند بابكم تلقى الوفود معا من كان سارة خبين منهم وسارة خبين loolu sëñ Fall ko waxoon sëñ Bara waxtu yu mayewul détaillé ko waaye lu am solo la ci biir waaye sëñ Fall wax ko ni ko daal askan yaa ko gën la ñëpp yaa gën a lewet ñëpp yaa ëpp ngor ñëpp yaa ëpp teraanga ñëpp yaa gën a baax ñëpp foo dëkk waxtu wu ne mbolo nga fa mbolo yi ñaari ci rek la ki am lu mu ragal te bëgg nga dakal ko ko ya gëna gaaw ci dakal ko ak ki bëgg njariñ te bëgg nga jox ko ko ya gëna gaaw ci xëc njariñ loolu bokku na ci li feeñ ci bëy bi waaye sëñ baara tontu ko ni ko xat foxta xat foxta sal xalqi min arabin wa min ajabin yaa man xalaa'iquhu ahla min addarabi mu ni ko sëñ fàllu sëñ baara ni ko kawe ñépp mo xam arab la wala ko dul arab do ma adam yep yaa leen kawe xat tasal khalqi min arab wa min ajab ya man qalaiquhu ahla min ad-darab yow sëñ fàllu bi nga xam ne say jikko mo gëna neex lem bu ñu tuddé lem tuddee lemuk nduyóor lemuk nduyóor moy lem gi dakk ci lem wax ko ni ko abuka kaashifu kurabil mustajiri bihi wa anta mislu abika al-kashf al kurabi kon sëñ bara def na ni ñi jëk wax sëñ fàllu ni ko yaay sëñ tubaa ci la bokk dako ne abuka kasif kurabil mustajiri bihi sa wayjur wa sëñ cheikhul khadim moom moo fi daan dindi njaqare képp ku wéeru ci moom mu tàggale la njaqare aduna ak alaxira yow nag yaa ngi mel ni sëñ tuba moom yi kon mooy yaay moom wa anta mislu abikal kashifil kurabi xasida bu gudd la wax ci ay jikko yu bari ci cheikh mamadou fadal ngan gi mën a naayam ci joxantey teraanga ñu dem waaye bind gi mag ñi li ñu daan seq li ci ëpp dañ ko daan bind loolu nag dafa am lu mu war a jur mooy nun génération yu mujj yi ñëw seeni ginnaaw bu nu xoolee xam ni ñii nii leen demee kenn ku ne di xam nan ngay jàppe sa nawle kenn ku ne nag di nga xam nan ngay jàppe sa kilifa yoon wi yoonu kilifteef la danoo war di joxante worma danoo war di di di di yërëmante danoo war di wormaal sunu kilifa yi danoo war di fàtte suñu bopp di yëkkati suñuy kilifa yoon wi ci kilifteef rek lay dox modernisation amul nouveau type de murit amul tant que nouveau type de bamba amul murit bu bees ak doxalin yu beex concept yu bees yi dugg ci yoon weeg nit ñi di ko doxe loolu amul la Cheikh Ibra nekkoon ak sëñ Touba mooy la wér la sëñ Daam a loo nekkoon ak sëñ Touba mooy la wér la Cheikh Moustapha nekkoon ak sëñ Touba mooy la wér la Cheikh Modou Fadal nekkoon ak sëñ Touba mooy la wér yeneen yu bees lu ñu mën a beesal jamono ko andi sëñ Tuubaa du màggat dañ koy beesalaat tant que Bàmba mu bees amul murit bu bees wërta am nan dellu ci cosaan la jëfe ndigal ay tere tey warmal kilifa loolu rek moo ñuy jariñ adduna ak murit murit day am wenn melokaan wenn melokaan soo toogoon sol sa mbubb mi mu weex fii ma toog léeg-léeg mu bula léeg-léeg mu ñuul léeg-léeg mu sokala léeg-léeg mu sokola duñ la tek lenn lu may ak njuma ndax yaa jëf-jëfi njuma am murit du ku day am wenn melokaan boo dee weexe ku la ko bulon nu na nga mel ñi lay xol njuma rek lañ lay jàppe da ngay am wenn melokan ñu xamni nit nga nan am wenn melokan ci sëñ touba moy wormaal sunuy kilifa te yërëm sunuy ndaw te déglu ndégal te diko jëfé lolu loolu fallu doyna ci misal liggéeyam bu mag bii nga xamante ne Cheikh du Moustapha moo ko tàmbali woon ànd ko ñoom ca tegu xeeroo ba ci cëppaandaw ji ci ndigalul Serigne Touba bi ci sëñ Modou sa liggéeyee li mu liggéey ba mu taxaw mu jël yoon wi ak njaboot gi ak jumaay ji lépp teg ci loxo Cheikh Modou Fadal amatul yitte ci lenn lu may liggéey sañ tubaab bi àgg lu mu am def ci lu mu xam wax ci luñ ko andil mu def ci lu mu ñàkk wuti ko def ci jumaay tubaab lu mu bay def ci dëkke doñ doñ guddeeg bëccëg di ñaan di jàngal xuraan di jàng xasaay lu baax lu ne lu baax lu ne mu koy def jëmee ko ci jumaay ñu bari dañoo jàpp ni xaalis rek la ci def déedéet lim ci def xaalis ci gën a néew. Euh, ba ci ati 63 yi liggéey boobu ak julli àjjuma ga ci jiitu moo ko jiite ba ni mu fi bàyyeekoo moo nekk imam bi dafa am rapport bu rëy relation bu rëy bu dox digganteem ak julli moom sëñ Fallou. ñi koy taarixal wax nañ ni xaral na der julli yu bari te xaral benn derub julli yombul ab der basangu ñax rek julli ci bam xar yombul xaral na ay der julli yu bare bare bare dafa amul sago ci julli ndax moo julli dañu ànd xat fàkk kab la xat ba sa fadd la fadru walla wana fu jaay xat ba sa fadd la faddlu googu mooy faddlu laa te sëñ Tuubaa dana yonante bi dagg na dagg na jëng yi waye yulli ngeenel ngëneel fadlullah na fadlulaahi yulli nag lu bari lañ koy def li dafa am soti am yulli am li ci barada des koy xel dañ nan xelil barada bi ci kasi new gata soti dañ mo moo li ci siwo des koy soti waye des ko xel waye yulli nag lu lu nak ci saako ci dama joxe quantité rek waye ci misal dañ naan yullil saako bi te boo ko yulli doo xotti tuuti dangay teppi ba mu jeex nga soog jàpp ci ñaari noppi kaw yi yëkkati ko loolu moo yulli xat ba sa fadd la sun borom yulli na aw yiw ci gudd ci ci ci ci sallallahu alayhi wa sallam ma man manees na cee def istinbaat ni loolu mën naa am ci guddi laylatul israa wal mi'raaj ndax yii wu nu am ci guddi googu la ñëw faduru wala bi ngëneel li ñëwee lor moom dani kii mënumaa dëkk ak moom damay dem bi sëñ Fallou dikkee manees naa wax ni bi mu dikkee lor moom dafa daal di tuxu kenn ku ne xam na li sañ li sëñ Fallou dox ci diggante nit ak lor diggante lislaam ak lor diggante yoonu murik ak lor diggante réew mi ak lor dàq na fi musiba ba tàyyi ci façon yu ne kon fadru walla wanafon jaa yi bi lor tuxoo barab bi féex njariñ moom day dikk dani damay dikk sànc barab boobu wanafon jaa yi njariñ dikk kenn ko nit xam na ni dikkug sëñ Fallou njariñ rek la ak nekkam fi ci zahir njariñ la bi mu fi bàyyi ko la gën a nekk sax njariñ ci nit ñi loolu mbirum suñu borom fadlullaahi fadlullaahi xul inal fadla bi yadillaahi yutihi man yasha fadlullaahi suñu borom fadlullaahi aw tur la waaye waaye mbir la boo nu woon or or aw tur la waaye jëmmi or dafa am nga xam ne luñ mën a laal la xam ne lii mooy or fadlullaahi aw tur la waaye am na jëmm lu mu doon moo tax borom nii nal fadla bi yadillaahi yutiihi man yasha ngëneel ci sama loxo la nekk ku ma neex laa koy jox amul yenn sabab yu mayee fadlullaahi benn loo loo xam dañ naan boo ko am fadlullaahi amul amul ay ragal coobare suñu borom ci lay doxal soob na ko nag mu jox ko sëñ Tuubaa man de gëm naa ne mooy Fall walaw laa fadlullaahi aleykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada bu du woon a ngëneelul yàlla ci yéen kenn du def lu baax kenn du set fa lawla fadlullah aleykum wa rahmatuhu la kuntu min alxaasirin bu du woon a fadlullahi ci yéen ngeen perte noonu nag perte nu ndax ab dañ fadlullah kon ci gàttal rek ak jëkkanteeg waxtu wi noo ngi balu ñépp ak di àndandoo di ndokkeel bu baax Cheikh Abul Baraka mi yàlla teg ci bopp njabootuk seex Muhammadul Fadal eh, di ndokkeel jullit ñëpp di ndokkeel murit yëpp di ndokkeel képp ku sëñ Fallou jaboote te nun noo ngi ci biir te nun dañuy tàbbi ci biir njabootuk sëñ Fallou ndax man génn sëñ Fallou di sant bu baax ci taxawaayam ci diine ak ci yoonu murit sëñ Fallou ak njabootam da koy jëmmal du ma am complexe ci wax ko ay nit lañ yoo xamante ni ca dëgg-dëgg yàlla na yàlla boole nu lafal cat waaye li sëñ Tuubaa bëgg ci lañu ñu nekk loolu mi ngi ci ñoom nangoo liggéey ak jàmm yàlla ak rafetalu mbokk ak wayafal seen bopp te mënoon a diis doomi sëñ Fallou doy na diis ay sëñ Fallou sama way jur waaye koo ci gis mu def la ni boppam wala sax mu jël darajee boppam teg ci suuf jéem laa wutal darajee wo loolu nag boo gàttee xel da koy nangu waaye nag loolu moom ñoom foofu lañ nekk koo ci tasari mu mu jël mu jël mbubbum darajaam solal la bëgg a doon rek ab taalibe di wéy te loolu rek lañ nag ndax xam nañ ni seen way jur wa euh, Cheikh Mamadou Fadel taalibu Serigne Touba rek la woon léppam sëñ Touba da koo gënaloon moo taxin moo ñoom ñi euh, ñoo ngi sant yàlla bu baax seen lépp sëñ Fallou da leen koo gënal seen lépp ak taalu bi da leen koo gënal seen lépp defaru bokk da leen koo gënal loolu nag yoon wi yépp am nañ ci ak seetlu sant nañ ci bu baax a baax a baax a baax Cheikh Amadou yu ñoo ngi yeesalaat cant gi ci yéen ci liggéey bu màgg bu am solo bii nga xamante ni booleel ngeen nu ci te euh, xam-xam bi amu fi kàttan gi amu fi waaye yéene ji moom mi ngi fi ndax bisub sëñ Fallou bisub yërmande la bisub tawfeex la bisub xéewal lañ ci ummatu Seydina Muhammad bi yépp yàlla na yàlla dolli nu tawfeex gën noo saxal ci li am solo muy ak taalibe te bu nu bëgg leneen lu may sëñ tubaa loo bëgg mu sonal la sëñ tubaa rek ngay bëgg mu noppal la wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu